ne boo war a ca relation bi day métti. waaw boobu mooy mooy waral ñeenti séance yi wala yu demee noonu daal. ñeenti séance. buur Fadam yaakaar naa ni dégg ngeen Lamine dégg nga li Balla tontu ci wàllu préparation bi buur Fadam. waa euh, man fi may fi may dikkee rek euh, sama question lay njëkkee ci am ni Moussa soog a barasiku dem ci Simba euh, tey dañu mën nañ wax ni que ñetti signature de contrat yi jot a am mën nañ ko jàngatee ci ñetti angle mooy bu njëkk bi. dañuy gis Balla Gaye 2 buy heurtel Tapha Tine Tapha garde toujours être la même personne bu deuxième bi bu deuxième bi arène nationale Tapha keroog dafa exploser ba toucher le fond keroog bi mu yuuxoo même tout le monde a été surpris mais ñetteelu yoon bi ñu dajee même ay supporteru Tapha Tine ils se disent que Tapha ñemewul Balla Gaye 2 parce que Balla Gaye 2 dafa défoulé wu ci ni mu ko neexee bu wax ak Tapha ci ni mu ko neexee ba utiliser sax yenn mots yoo xam ne mooy da nga ñàkk jom wala da nga nangam ñu gis ne que Tapha saa bu Balla waxee noonu dafay laal orgueilam keroog est-ce que Tapha amul regret amul lu muy rëccu ci signature bi passé est-ce que melu ma ni moom wala pourquoi mënu moon am taxawaay ni moom wala bataille psychologique la simplement boo xam ne Tapha noonu lañ ko yebee mu ñëw topp lañ ko digal ba jàkkaarloo bi jeex. buur xam nga doomu aadama bu ne ak niñ la yare man refan laa yaroo mm, amul lu ma mun a soppi suma life du yow du Balla du Assis Ndiaye mi teg làmb ji du keneen jamais de yi dañ may yar-yar bu jaar yoon jàngal ma alxuraan mm-hmm. garab gi ñu ma doon yare donc mu ngi refan garab googu dong dooy na ma ci yaat bu ma gisee garab gi kese mën na maa yaat wallahi azim kon duma gis lii tey muy sensé dara ci sama vie quoi man c'est comme ça lu neex waaye na ma wax man du ma tontu kenn yéen xam ngeen ma ci làmb lu ma mën ak lu ma mënul mm-hmm. xam ngeen ma bu baax a baax bu dee fula ak fayda ak jom ak ngor doomu aadama du ma nangu mu ëpp ma ko suma life kon nag kay wax ay waxi salte mag ñoom seen moom la engagé kay wax lu salte ci moom la nekk mais newul ci tafaatin mais ni mu communiqué ak yow est-ce que neex na la yow personnellement kenn ku ne kenn ku ne ak niñ la yare ah na ngay waxee man niñ ma yare noonu lay waxee calme très serein laras lijjantiwuma ko amul dara lu muy wàññi ci sa psychologie non jamais de la vie parce que même communication bi la utilisé woon ak xam nga lan moo gën a metti mhm. ci làmb toog di sensé nii ak sa adversaire y a rien dedans du dara da ngay ànd ak sa papa ak say frère ñu boole leen saaga loolu lan moo ko gën a métti nga muñ ko dem sa yoon. Mhm. <laughs> ah problème y' y' a pas problème benn dessus ci yow. xoolal wallaahi asim yéen ñu mel ni yéen yéen ma ko nit li man yéguma ko woon sax santiiruma ko woon sax. te pourtant yow la jàkkaar tamit. barke yonent yàlla Mamadou santiruma ko. Mm-hmm. santiroo ko. ma laaj Tapha Tine est-ce que est-ce que Tapha Tine est-ce que Tapha Tine keroog ci jàkkaarloo bi amul nervosité c'est-à-dire est-ce que Tapha merul Balla yóbbu la foo xamante ne merloo na la. non Modou Mbaye xam nga man du tey laa def face à face quoi depuis man ak mbër bu ndaw ba léegi maa ngi def face à face. face à face bu dem xam naa lan moo fa ak lan la laaj. bu leen comparer face à face bi amoon stade ak bi am bee comme ça nga toog serein cool ñëpp toog du ma def yëf voilà. damay def li face à face bi laaj face bi stade suur boobu loolu la laajoon face à bi ñu ñëwoon toog loolu la laajoon suñu première face à face loolu la laajoon bii lii la laaj loolu laay def. moo c'est pas fou hein. fu ma jëm man laa la wax man fu ma jëm xam naa ko ak lan laa war a wax. kon li muy def nii dara dara yëngalu la ci sentiroo ni sax Balla Gaye nga taxaw sa kanam di wax yi muy wax. en fait dix-huit ans dix-neuf ans de carrière bu ma amatul expérience de làmb fu ma jëm. refan ay hectare laa fa am. Ah. yàlla yàllaa ngi commencé taw ma dem béyi ko <laughs> loolu la te pourtant ni mu wax ak yow neexul benn bool bool yi bi ñu xëyee le demee ci réseaux sociaux yi bool bool yu ci bari dafa am dañu am ñoom lu leen naqari. pour pourquoi Tafa kii mën a comporté woon nii ci kanamam te deful benn réaction. mooy mooy mooy li ma mooy mooy li ma la wax rek doomu aadama mu ne ak ni ñu la yaree. ku ne ak ni ñu la yaree noonu ngay réagir man ni ma yaree noonu laay réagir noonu <laughs> la res nag. keneen ak keneen loolu la mais waaw Balla Balla Gaye dafa mel ni bëgg na tontu ci li Tapha Tine di wax nii de. ci li waaw ci laa bëgg mu wax si Omar Tafa nee na nit ku ni nga mel nga jëfee keroog. waaw oh, Modou je pense je je pense je pense toute façon. nit li ngay dund sa kër wala li ngay dund sa koñ ak li ngay dund ci làmb du benn c'est pas la même chose bu ñu jaawalee liggéey ak ñàkk liggéey tu vois moi je suis responsable tout le monde te xam samay mbokk xam nañ ma ñi yar xam nañ ma mais bu suma liggéey jotee li mu war dama koy def amul mbindeef buy dox si suuf ëpp ma yar amul mbindeef buy dox si suuf gën ma nekk nit gën ma correct mois je si sage je suis chargé je correct. mais maintenant la dama respecté suma liggéey. bu liggéey bi lu mu laaj moom laay def. moom nu muy comportement du ma ko lijjën sax yàlla xam na intéressé wu ma. plus important moi mooy que signature bu ñu jotee. li ma war rek lay def. est-ce que bi signature bi jeexee bi nga ñibbee sa kër neewoo man am naa lenn lu ma jiitoo tafaatin léegi ci côté psychologie. non non non pourtant du ay côté psychologique parce que signature bee ko laajoon rek ma def ko parce que man dama jàpp ne loolu laa waroon def def naa ko mais li res man bàyyi ma ci xel ko wax yàlla. Hmm. waaw bàyyi ma ci xel. bàyyiwoo ci xel. non xanaa. waaw am na solo am na solo maa ngi nuyu gars yëpp euh, Balla Gaye numéro 2. nga jàkkaarloog mbër mi di Tapha mu toog dix ans yu mu daanul ci làmb daan ay grand champion yoo xam ne saa yu jàkkaarloog yow daan ñi la daan man maa leen daan ban Balla Gaye numéro 2 la ñu war a xaar ci digganteem ak Tapha ci dimanche bi ñu jëm waaw ah, euh, boo sotee xam nga wax jooju dama koy dégg tout le temps dama yaakaar ne moom da ci bàyyiwul xel quoi est-ce que xam nga ne ñaata mbër laa mos bëri ci àdduna ñoo xam ne mosuñoo daan maa leen daan mosuñoo daanu bokk astafurlah. Hmm. maa leen daan. Hmm. waaw. moom peut xam naa. dafa hmm. dafa comprendre. waaw kolifay bi nga koy daan yaako ko daan. waaw ak kan. waaw moom Modou bi nga koy daan yaa ko njëkk a daan. ak kan ak Yaxya. ak kan. Eh, eh, Lamine dimbali ma foofu. ak kan doon lim du fi jeex. loolu def moom. maam Góor Diouf waaw. bawol la nekkoon ñoom ñaar ñoo nekkoon ñoo bokkoon day ak baay. kii dama ko daan arène. kii dama ko daan arène daan ko mbappat moom. Koli Faye Koli Faye. Mame Gor ko daan arène moom. Mhm. moom la àndaloon. mbapat ñëw mu xataraayu kon ni mu yàgg xataraayu nii rek moom bon. après moom mu ñëw mbapat ma daan ko Mame Gor Diouf toog kon Mame Gor Diouf nu mu toogee seetaan ñu man ak Tafatine ma daan ko kon Tafatine nu mu toogee seetaan Mame Gor Diouf ma daan ko arène noonu la mais du question que affaire yi cest à gis nga àdduna pour man liggéey dañ koy respecté. Baye Ndiaye ak buur géwél ak santul kenn pour mu changer làmb boo ci duggee lépp li la war luy neexal làmb danga koy def mais xam nga sénégalais yi dañuy am pa pa du ma ne sax sénégalais yi am na ñoo xamante ne nit boo xamante ne dafa sincère dañuy jaawale ak nit ku xamadi c'est pas la même chose mm. nit ki li mu wax ci suuf ba nit ko tontu ko ci kaw mm. loolu la ñu war a c'est très important nit di di di jàngat ci loolu. dafa am lu la wax ci suuf dafa am lu la wax ci suuf te yëguñu ko. mais mais buur mais mais am na loo xamante ne. Hmm. jàkkaarloo nañ ma ne ko bul ma ko wax. mu jaar si pourtant kenn commentaire ci non moom xam na ko xam nga moo tax gis nga yar respect c'est si propre man dama ko respecté man ba bëgguma ba bugguma wax moom lim ma wax. Hmm. intéressé wu loolu maa ngi moom la concerné yëfu góor la amoo réel ndigal. Hmm. c'est ça la vérité. Hmm. fii xoolal liggéey.